conditions yi matewul parfois on a tous les problèmes pour faire correctement notre travail mais yàlla baax na en tout cas les partenaires, ñu ni ak yéen ba ak la caravane de l'intercoalition Yewwi dans le département de Guédiawaye bu ñu noppee war a dem fi nga xamante ni département bu Kër Massar jaaree yëmbal nous ñu ànd ci les leaders de la coalition Ousmane Sonko Khalifa Sall Déthié Ahmed Adjara, avec les maires des communes ku ci Khadija Mayekor Aminata Kanté nous sommes ici. ñoo ngi il faut parfois ngeen comprendre situation bi ndax bi daye bu biñ toll nii mu toll dafa bëri lool ba tax dina wax ne le travail est très difficile maintenant mais on va essayer de gérer ak yéen ba léegi ngir jox leen lépp li nga xamante ni moo tukkee bi

des leaders ñu xam fan lañuy jaar ndax dañuy jël gauche duggé nonu ndiarém wala dañuy jël droite duggé ko nonu dem wax na ñu daat lepp dina lèr en tout cas après bi nga xamanteni jël nañ décision ngir jaar gauche. yoy fi di xol yon muy jaar entre gauche ak droite ba légui gaay dégg déggoo ci ay cadeau ñooy ni waw biñ ñaareem limaamu laay gis fii Géejawaay ay junni junni doomu aadama ñëw fii nga jàpp ko nga les deux coalitions wala ak Yewwi extraordinaire jërëjëf kontaan na seen baax merci beaucoup xaw na metti mais n'empêche n'empêche daan leen ko dégtal si nu mu gën a leere ak nu mu gën a rafetee ñu leen di xaar rek seen ba contribution ci liñ leen laaj sànq par rapport ak treizième législature bi ñu génn ak quatorzième bi ñu jëm naka ngeen ko gisee ak lan ngeen di xaar ci ñoom voilà ñu ngi nii nag tollu ci xamee dugg naka biir Sam Notaire bi nga xamante ni moo di commune bu Aminata Kanté nekk ci parti grand parti bokk ci coalition Yewwi Askan

waaw Abdou Fall nee na bilan zéro nee na bilan zéro Safiatou Dabakh nee na 20 sur 0

te ni moo di euh, les urgences yi ñu war a mën a saafara tartar ngir réew mi mun a jëm si kanam. noonu di jël ci kaw terrasse yi ñoom ñëpp di yuuxu li nga xamante ni moo di la coalition Yewwi Askan Wi lii nag c'est un signal fort signal fort boo xamante ni li muy mandargaal dafa bari li muy joxe dafa bari ndax tey jii gars ñëpp ñoo bëgg changement changement boo xamante ni bu ñëwee jafe-jafe dina jeex ñëwee li ñuy xaaree député dinañ ko def ndax yaakaar rôle d'un député c'est ça le rôle d'un parlementaire fexe ba défendre les intérêts des populations loolu bu amee rek problème on na pas a am. Libérez Libérez Libérez Libérez Libérez Libérez Libérez waaw sant alhamdulilah. sant sant. jaay doole ak impunité bi rek bi ñuy wax toujours rek mooy lii quoi. am doole di ko di ko tax population quoi kenn xamul force spéciale moo la ñu war a bàyyi di ko tudd force spéciale xamuñu sax xamu ku leen di xalaatal loolu ñuy créé ay force spéciale ay ay force spéciale bu ñu xamoon li force spéciale danañ ko teg ci suuf quoi. moo tax ñu ah dañu ne dafa bokk ci force spéciale yi nga xam ne keroog manifestation wu manifestation wu 17 juin bi lañ doon wax nii dafa force bokk ci force spéciale noonu lañ ko ñoo jël mais bi kenn xamoo ko dara lu dul marché bi. ñëw ne par marché par marché marché sax une une maman waaw une maman qui a plus de cinquante ans ñëw jël si këram naan ay force spéciale fu ñu ko teg jaay doole. ci ban ci ban parti la nekk Pastef la bokk. moom mooy lan ci Pastef. non Pastef ci ci kii wu jigéen responsable femme yi ci la bokk. kon ay comploté wala kii xam na ay nit ñoo xam dañoo war seen liste dañ leen ciblé ci moom lañ ñëw nii mais jeexagul. dañuy ciblé ay personnes par nit par ay nit xoolal Mankabu bi ñu rey Pape Mamadou Seck kenn xamul fu mu nekk ñi naan dafa évadé du mu mun a évadé ku feebar du mu mun mu nekk ba léegi léegi ñuy wax encore barki dem ñëw jël si maire bi di ko yóbbu mais loolu doy na kenn mënu koo expliqué kenn mënu koo xam léegi suñu kilifa dina ñu ngi toog di xoole kenn du wax léegi dañuy xaar bu dëkk bi tàkk léegi ñu soog a mën a wax dafa doy nag dafa doy quoi merci